cant gi door na fii ci Thiès cantuk matal sas tey dëppoo le 5 octobre soxna Aïda Saliou Thioune fas yéene fay sant Serigne Serigne Saliou Mbacké gile cant nag mbokk yi sabab bi du lenn lu dul waajal 17 avril 2025 gis ngeen mbana yi noonu mbokki taalibe yaa ngi ci waañ wi di amal toggum mbernde yi nga xamante ni moo jëm ci gile cant mbokk yi nag ku ni cant te ku ne xam na ni soxna Aïda Saliou Thioune ci la rawee mboole seen kuy mbindeef gile cant di sunu diine soxna Aida Saliou Thioune sax ci ku ne xam na ni mooy borom togg ajjuma yi aljuma bu jot muy lawtal ay lim ci ay nag di ko bernde di ko defar di ko jox ñi nga xamante ni ñoo di daara yi hôpitaux yi xéewalu sëriñ Béthio yi wër ci réew yi mbokk yi nag xéewal yooyu nag ak cant gile soxna Aida Saliou Thioune di waajal 17 avril tax boobaak nege ni mboole seen mbokki taalibe yi di ko waajal tax nag ñu ñëw fii ci Thiès ngir amal fi cantuk échéance cantul Massar Sass première échéance waajal jëm ci 17 avril ngeen gis waa ñu noonu ni jàmbaar yi yëg si. maa la ko wax xollem soble si di xam ba mën yi lépp di gos mbég mi gaa ñi kontaan bég lool di waajal sunu cant gilee nga xam ne moo fa séenee am fii ci Thiès tey jii. kon nag fu waay nekk fa séeneenal yëg si ndax Thiès day dëkkub Serigne Béthio te soxna ayda daa am lu mu fi nam ma wone waajal 17 avril 2025 première séance mbokk yi ah mi mbég bu leen ko kenn nettali